course ñu ngi lay ziar waaw maa leen dolli ziar di leen leen bëggee yéen ñëpp waaw gis nañ coono ak yéen daj nag pour liggéey bu rafet gis nañ lépp waaye nag euh, Eumeu Sène la wax am na combat ndax combat bi ñu dañ ko bëgg te dañ say daj coono ba nit ñi du woor di tëdd di nelaw ñu ñu ngi entrement dañuy entraînement ba mu leer ñu dem tëddi mm-hmm. ndax combat bi dañ ko bëgg bu baax bëreewuñu revanche nag ñu dañuy bëreel suñu bopp mhm. waaw bëreewuñu revanche ay saakees ba ay Balla Gaye ay Abouche ah. non non dañuy bëreel suñu bopp ndax saakees ñëw dañoo war a génn ah. waaw dañoo toll si war a génn waaye tey saakees bu daanee tey magu magu xolu magam dana seet waaw waaw du daanee dina mel ni genre revanche mais fekk du revanche ah. ñu dañoo bëgg a génn dem parce que yoon ruq bi ñu nekk dañ fay yàgg ruq bii dañ fay yàgg ñaata at ñu ngi booy bu ñëw ñu bëgg a yow booy bu ñëw bëgg a yow dañoo pour jël Eumeu Sène test sa jàll dem ah, ah. waaw kon kon Eumeu Sène jaarukaay la nga non du jaarukaay de ah. de non non non non ñëpp ko dimbali rek pour taal biddéewam Balla daa taal biddéew Eumeu Sène rek mais saa kese daa ñëw pour fay biddéew bi d'Afrique non lol dara lol ancien ah, loolu ban année la ah course champion d'Afrique ban année la 1900 la 97 wala la nga def boobu man juddooguma 97 la wala la nga def sa Sakess dari xale ah. te daa am doole ah. yàlla xam ni Eumeu Sène bar bi ne pire Sakess la jëm te heure bu mooy jël bu gën a ñaaw ah. ñu ni ko Tapha Tine def nii non bi yee gën a ñaaw ah. waaw ah, maa ko wax moom bindal kon ñu ngi fii ci buntu kër Sa Thiès euh, nekkoon ak kenn ki nga xam ne mooy euh, bokk ci course Sa Thiès yi ndeysaan euh, donc li mu waxee rek tey mooy moom wóolu na poulain am tey tey am na confiance yi nga xamante ne mooy poulain am kon tey amul lenn lu ñuy mën a wax rek lu dul moom nee na tey Sa day dem boo xam ne nii mun nañ xel ñaar ci moom ndax li mu war a def yëpp mu koy def amu ci benn pression bàyyul benn yoon adversaire bi xel kon loolu moom ñun li ñu ko jàppee combat pression. nga gis ne tey Dougar yow combat bi tey war na mën a yomb tey diggante Sa Thiès ak Eumeu Sène. waaw làmb moom ku la ci wax ni day yomb day gaaw day yéex daa fekk ni moom mu wax xalaatam rek mais réalité làmb moom foo ko natt rek weesu na ko mun na ñëw yomb mun na ñëw jafe mun na ñëw gaaw mun na ñëw yéex mais lépp lépp lépp rek ci adversaire ci ñoom ñaar lay lay lay lay dépendre te am naa ci yaqin ni moom wax dëgg yàlla dinañ ci gis bi nga xamante ne moo tax ñëpp ñëw ca saat muy bëre bu yàgg. ndax ñaari mu mënu ñoo daje rek bërë bi jeex ci niñ ko gars yi waaw sant yàlla bu baax a baax sant nañ yàlla bu baax di ñaan tey ñaan yàlla suturaal am na si ñaari combat yàlla yàlla may ndam ñaari komba yëpp waaw waaw Youssou ah, tey euh, gis nañu Sa Thiès tey ki muy bëreel mooy Eumeu seen dafa daan magu Sa Thiès ñaari yoon tey magu Sa Thiès moo gën a weex Sa Thiès ñaari yoon junni yoon te tey ëmb da koo jàpp nax ko daan ko ñaari yoon tey ba pare mu jëlaat rakkam fas yéene bëre ak moom tey lan ban enjeu la am ci yéen yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci ginnaaw saa si jege ko ak waa Guédiawaye loolu amu ci làmb comme li ma wax Talfa rek ba mu daanee mbaytin jàpp na mbaytin moo mën Guédiawaye wala moom jàpp nañu kooku moom mën ñëpp loolu du làmb mën nga daan kii suba nga ñëw keneen daan la làmb moo demee noonu Eumeu Sène mën na daan Balla Gaye te daan Sa Thiès waaw ah. ndax da nga koy xool seen biir rek ñoom ñëpp gis nekk da daan sa morom te kenn mënul daan sa morom noonu la fa demee rek waaw. Euh, ci ban adversaire ngay séntuwaat. non man dootuma taxaw yooyu laaj kenn mais ku làmb yoo xam ne jaar na man moom pour làmb ñu bëre suñ ñëwee ñu ñaar ñu bëre waaw. mais Youssou da nga ci xarnu bi nag Youssou tey. Youssou tay amna sa morom yo xamne tay presque dégg nañ roi des arènes kan Youssou dafa melni tay da nga am retard ci ci xaw xam nga xaw nga am retard bari na ñi nga bëri ndool bari na ah, kala instant ñu kenn jeen kër mom daan ko xamne mom xawon raw ta lay ñu ñaan ñu ngeen dox ni suñ combat non jeen kër mom ya xor lay jeerna kon kay waxa fi kenn ko xamne ne jën kayra moom bu ma xoolee sax yo est-ce di nga jël jeen kër lan mo tax ah. dama la wala kika daan champion la est-ce do doo laaj Zarko ba tay kuma lamb bo leen rek Youssou man Zarko la gis man mom la gëna bëgg est-ce que ragul leen Zarko mom la gëna bëgg sax ah ah, ah Youssou ya ko wax de fii nga waxee Dental TV man am lu may tàppale. yu Zarko da lay woo téléphone léegi de. Zarko ñëw maa woo téléphone. ah, ah. waaw na yow Dental ñun dinañ ñëwaat defaat ak yow émission. di nga wax te Zarko dina la bu ñëwaatee nga xam lépp dëgg la waaw. Ah. Ah. ah Baye Ndiaye xaw ma Aziz Ndiaye tëggaleen lool <laughs> Youssou Ndour Zarko ah. loolu laa de man ta bàyyi ma fi kenn ku ñu bëri ko niñ ko waree rek nekk si entraînement yi xam nga toog si tànk yi ndengeeñ yaram waaw waaw nga gis ni Sa Thiès tey euh, moo diggante mu Eumeu Sène ndax dina yomb ndaxte Eumeu Sène dafa daan magam ñaari yoon. waaw mais mag yi mag ji la rakk ji rakk ji la. Ah. waaw te ñun xam nañ suñu mbër. gis nga dina yomb. waaw no du yomb moom du mun a yomb ndax Eumeu Sène nag bu mag la. Mhm. waaw dañuy bëre moom ci science rek. te nag bu mag yàq ngooñ. te nag bu mag du yàq ngooñ noonu la demee nag. loolu jeex na waaw. waaw bu yow gën lan yow. man dal bu bi rek laay topp. dal bu dal baay baax na. muy am sans défaite moom la topp tal kase tal faa kase. Sa Thiès xoolal mooy yow faral ma Sa Thiès. damay ñëw fi pour jël bi. kii waa ko a waa Guèye a daal lis moom lis. lis moom yéene naa ko dam quoi lis Ndiago. say sa mbër la a bokk koñ. bokk maa moom koñ nag. ah yow laa dëkk kon parcelle. tey lan moo fi indi tey. non sama booy fi indi rek. Ah. man sa mbër ma fi de. Ah. bu yàlla may ndam rek. Ah. waaw suñu faaw loolu baax loolu neex na. jàppee nga a nekk biir Guèye waaye de. gilim laa gisagul gilim gilim. waaye xool leen lii xool xale bi di naan soow xaw ma naan meew lay naan ak galaas waaye lii lan la. lii lan la ndeysaan lii lan la waaye yéen Boucher Kétié ba ngi soog a ñëw. Boucher ba ngi ñëw noonu di soog a ñëw ndeysaan ay waay mystique waay mystique dundaat na ci làmb mystique yeewu na ci làmb Boucher Kétié waaye gars yi coow lii di am lan la. coow lii di am lan la booy génnal noonu coow lii di am lan la ndeysaan ci diggante waa kër Balla Gaye la de waa kër Sa coow li coow li lan la ay waay def leen nànk yéen a moome yéen a aye ku aye war moome waa coow baaxul waaye li yëpp nag ay xabtal boo ko gisee li ay xabtalla la ay xabtal ci adversaire bi de ah bu ñu deful ndànk rek ah ah adversaire bi dana am lu mu bëgg de waaw ah waaw waaw lii ay eh, lii wóorul yow. li xabtal la sama nijaay xam naa làmb sama nijaay dama daan bëre mbër mu yàqulaa léegi ndeysaan déggal loolu waaw waaw ndeysaan lii dafa neex waaw buuse kee yëpp ndeysaan ndeysaan daa mel ni waa kër Sadio pare nañ de gone yi dañoo ànd ak xadar ànd ak daa mel ni xabtal gi daa jóge kër Eumeu Sène ñëw fii waaw xaw nañ jum sànq na xaw nañ laale ñoom seen biir waa Kër Saatchi si TV mais Cokor TV daa neex waay e lii lan la waa Melokaan <laughs> e collaboration bi musul am nag collaboration bi musul am waaw ndeysaan collaboration bi musul am Balla Gaye 2 la Lion de Guédiawaye am na ku muy woo noonu de fey la Lion de Guédiawaye xoolal la Lion de Guédiawaye le Lion de Guédiawaye am na ku muy woo de sama cameraman jëlama la Lion de Guédiawaye di mag ci Sa génn na yér ci balcon bi am ku muy woo lépp ci ay débat déeb la lépp ci ay tegtal la lépp ci ay jëf la pour daan Eumeu seen tey saanu kii di nga xam ne mooy Balla ama seen daan na ko ñaari yoon rakam tey war ko mën a jëlee revanche waaye nag xam nga lu ma jaaxal sànq dama dem ci taliba ah, daje faak Youssou Ndour daje faak course bi nga xamante ne mooy course Sa Thiès nee na ma du revanche nee na ma nee na Sa Thiès dafa am ci ruq bu mu nekk te yàgg fa war faa génn ma ne ko ah sama nijaay loolu dina yéeme lool loolu de Balla Gaye du ko wax Balla Gaye de bëgg na tey Sa Thiès dëppal ko Eumeu Sène suuf ndax xolam mën a sedd ndax Balla bokk na loolu bokk na li ci gën a mu ne ma du revanche du revanche suñu bopp la ñuy bëreel ndeysaan xoolal loolu rek xoolal lu loolu kon gars yi yéen wunu combat bi danoo xam ne ñoom jàpp nañ dañuy dem jëli ñëwaat boo see këccëb laay seen ci buntu kër Balla Gaye daa mel am na tegtal yuñ ko jox daa am na tegtal ko jox jëlal ma jëlal ma ambiance boobu sama cameraman ndeysaan di jaajëfal suñu DG Basirou Ka borom Medinatul Njulul di agent immobilier bu mag boobu nekk ci Tivaouane Peulh di jaajëfal waa Tivaouane Peulh di ziar waa Tivaouane Peulh ndeysaan di bëggee waa waa waa Tivaouane Peulh waaw di nuyu monsieur le maire Mamadou Ba di ko nuyu bu baax a baax a baax di ko jox wàccuwaayam di ko naan Tivaouane Peulh yow la ñu wóolu kon liggéeyal Tivaouane Peulh saa Cees a ngi génn noonu doon benn ndeysaan buuse këccëb ngay seen liiru jàng ngay seen ci wet ga ndeysaan bala ñëw taxaw ci kaw balcon bi dend ak doomam Mohamed ndeysaan yaram daw na yax des ndeysaan deret dafa foor deret dafa jege ndeysaan waaw waaw xoolal ma ambiance bii ci buntu kër Sa Thiès tey di le 5 mai 2024 ah Sa Thiès war ci jàkkaarloo kii di nga xam ne mooy Eumeu Sène roi des arènes ancien roi des arènes ancien champion d'Afrique bëri def lu ne ci làmb nag. def yoonu jaarukaay la ñu bëgg a def Eumeu Sène Eumeu ne dee du ma leen ko may ah kon sama nijaay combat boobu yaakaar naa du yomb de tey ku yàkkamti rek ku xef doo gis jël ndaxte Sa Thiès njaxlaf na njaxlaf goo xamante ni. comme fitt la waaw comme jiit nu mu la naan teef nga yëg ko ay Balla Gaye ngoog si buntu kër gi Balla Gaye di mag ci Sa Thiès Eumeu ko ñaari yoon tey rakam di jël ko jëlal revanche balaa ngi noonu di nuyoo jóge fee ci INSEP ceey la Lion de def lu ne ci làmb ndeysaan eh ndeysaan balaa ngi yor mbuus bu zone <laughs> eh làmb waaye yow waaru woo ah bala daa mel ab sëriñ la léegi yow ah eh balaa ngi woote le lion de Guédiawaye ngoog ndeysaan Balla Gaye 2 bologu ticket génne na bologu ticket daa mel ni gone yi lijjanti de mu jaral leen lool ngeen dem bëri seetaani mu bëri daan ñibbisi ndeysaan déggal loolu waaye ndeysaan kay jéege siima doo xool <laughs> ndeysaan lamba neex jërëjëf lamba neex xoolal ambiance xoolal ma ambiance xoolal ma ambiance Balla Gaye noonu taxaw ci kër gi def ay ay tegtalam ndeysaan Balla Gaye ngoog nit ku baax la nit ku yàlla baaxal la yow ma ne ko Balla Gaye jox ko liggéey bi ndeysaan bala gay ngoog bala gay moom la ñu ci buntu këram ndeysaan ñu ngi fii tey fii ci géejawaay buuse këccëb laay seen noonu ci wet gi jege doom ndeyam Balla Gaye 2 ñëw gunge si ko ànd ak rakkam Sa fas yéene dem stade jaamaar la ko Eumeu Sène ah Eumeu nag nee na leen may dara Eumeu nee na waa famille Double Less leen may dara ndaxte musuma leen may dara kon tey yaakaar naa tey kon tey Sa Thiès xare la tey waaw Sa Thiès ñaar lay bëreel carrière am lamb ak magam Balla Gaye 2 te magam Balla Gaye 2 mu ngi am combat diggante ak Tapha Tine waaw dem fe demoon fee ci INSEP ñëwaat indaale forme bu garaaw a garaaw isaam Balla ngoog di ree cey Balla Gaye 2 le lion de Guédiawaye ndeysaan Balla daa bëgg lamb Balla lamb Balla daa bokk ci lamb ndeysaan yaakaar naa li des Sa Thiès génn bareetul yaakaar naa ñu ngi ci dernier réglage xabtal boobu noonu moom la Sa defoon kii di nga xam ne mooy Boy Niang 2 Boy Niang 2 astafurla moo ko defoon Sa Thiès Sa Thiès xabtal ba ñëw dal ci koom Boy Niang nax ko daan ko moo tax ma ne la xabtal dafa garaaw te lu baax ci làmb la boo xabtalee sa adversaire day juum ñëw nga daan ko moo tax it mbër boo gis buy dem ci sëriñ loolu la koy njëkk a wax xaptalal ma mbër mi xabtalal ma ko li ma lay wax sama nijaay dama koo xam. sama nijaay boobu mujjul am ndeysaan lamba ngoog tey jii gis nga bundu kër Balla Gaye gaa ngi tàng jër bundu kër Sa Thiès mu ngi tàng jër yaakaar naa lii nag war nañ ci mën a xoolaat seen bopp toog waxtaan war nañ mën a benn jël benn 10 minutes waxtaan seen biir tey ndaxte dañoo juum jum nañ de juum nañ de xabtal nañ leen lool waaw xabtal nañ leen lool waaw li li wax de géej waaye laay gis noonu jàmbaar ji borom INSEP ndeysaan Balla Gaye ngi noonu waaw siggi na waaw borom borom INSEP di di doom day sama bu baax am ci Sénégal waa Thioker TV waa Dental TV ndeysaan xoolal collaboration bi rek. bonsoir madame mademoiselles et messieurs on est très content on est très ému d'être là euh, devant chez euh, qui est en train de préparer euh, son combat avec Ousmane. Donc euh, Ousmane qui a battu son frère deux fois. Donc euh, le frère de Balas Sachez qui doit affronter aujourd'hui Ousmane le soir du 5 mai 2024 au, au, au, nationale du Sénégal. Donc, Sachez qui sortir, il est sur les dernières réglages de ah sa première dame. Et Desan, Desan. yakarna office bi dama gis Boury li soutien Sa Thiès le requin noir ah tiam cherem la ku bax la buri ndaysan di nuyu wa keur Doubalès yëpp ndaysan yakarna wa keur kër Eumeu Sène ñoom ngi nekké ni mang ngi ko maa ngi maa ak sama consultant ba nek fofu waaw ndaysan ñom ñu ngi fofu di préparer. xolo buri Boury li buri Bathily li momit mu ngi def ay affaire ah di yor téléphone am di woote ka mu xab dana ko woo pour dimbali séeréem mu daan lonkal ma li yow ah. organisation ci bunt kër gi waaw am na lu fi xewoon sànq nag am na lu fi xewoon sànq ah, yaakaar naa xabtal gi dafay bari doole xabtal gi dafay fooroon buri bàcc li mu ngi yor benn mbaxane mu ruus waaw mbaxane mi Balla Gaye soloon la buri bàcc li jël xaw ma lan la ciy def nag waaye waaye waaru wu leen même eh, yow même jabar yi sax dañuy mystique yow dañuy xarfa eh waaye eh nobaate nga waaye buri tike yi lay séddale ah, buri tike yi lay séddale noonu waaw noonu la sa jëkkër bu xewle da nga koy jàppale jigéen day jàppale borom këram ndeysaan nit boo ko nobee da koy dañ nga ciy feer da koy wone waaw gaa yaa ngi noonu yor paanu galaas di génn yaakaar naa lu sedd leen bëgg jàmm ndeysaan génn bi du yomb ala daw me na bés bi du yomb lambaa ngi waaw maa la ko wax xoolal ñi taxaw ci naaj bi rek li sen sen sen seen doomu ko jar nek ben nit yalla tan la ci kon da nga wara a ñi xol xool leen bëreeg ñoom ndeysaan xoolal ma galaas gi ñi sul yow. and ak galaas yi di sul ak galaas na sedde seddee mais la ñu ñu naan ci xoolal loolu ndeysaan wa waaw waaw. war wat Tiwaawoon Pël rek bu baax di bege wa Malika sama dekk yaayu Malika ak Pikine ndeysaan géejewaay gi tay ji sama nijaay fi la dekk tay ndaysan di di bege wat wat Tiwaawoon Pël di bëggee waa cité Darou Salaam waa ko waa commune Tivaouane Peulh ñàgg di leen bëggee ñoom ñëpp waaw di nuyu suñu monsieur le maire Mamadou Ba yow la ñu ndamoo yow la ñu tiitaroo sa rakk Basirou Ka yow la wóolu sa rakk euh, euh, Bayal yow la wóolu ndeysaan di nuyu la grand collectif du village de Tivaouane Peulh ndeysaan di si nuyu maire sama doom ndey sama turandoo doom di leen bëggee yéen ñëpp di leen jox seen wàccuwaay du ñu lim nag ku ñu lim juum di ziar sayer DG wu di ziar sayer bu baax di di di bege sama cameraman bi wax si pro keri yi kër ak ñom yëpp keri ak ñom gaay ci balcon di yernu ndaysan xolal ma ki yor krus gi xolal ma ki ak krus gi rek ndaysan lepp ci def ay ñaan xam nga ne dëkkandoo ndeysaan desan mbokk la ndeysaan dëkkandoo mbokk la ndaysan xolal li rek xolal xaluma xalé jigen ci balcon yi sama cameraman jël ma lolu xolal ñi ci balcon yi ndaysan li dan bëgg seen dom daan bëgg seen dom am ndam ndaysan ah ndeysaan lamba metti na ndeysaan ndeysaan xoolal ma lii rek lamba bari tegtal. Hmm? ndeysaan xoolal xoolal ma ñooñ ci balkon bi waaw juróomi sëriñ leen xaw ma juróom benn ku nekkaa nga sa kurus daa mel ni ñoom ñoom lañ utal néegu spécial di ñaañal Sa Thiès ey xar fu xuufa xoolal ma xar fu xuufa gi ci lamb ji yow xoolal ma mystique bi ah Sa Thiès caaxaanewul bés bi xoolal ma lii ñu ngi tim balcon bi mu ngi yor bal ci loxo gi waji sol t-shirt bu blanc bi ñu ngi jax ay nonu gis nga hey doomi Double Less gi sa xane wul combat bi ay way ma ah sa mo lañ ñoo ngay jël ay tangal di saraxel Sa Thiès Sa Thiès sax yegu ko Sa Thiès yegu ko xolama li rek ndaysan tay waaw xolal ma ñoo yor xaal ñu ci bulu keer yor ay xaal nekk ay tektal Souleymane lañ koy wax ndaysan tay ji di la 5 mai 2024 tay euma sen war ci jakarlo ak satiès tay Pokola war ci jakarlo ak Luis Ndiago Tafa Mbër war ci jakarlo ak euh, Mor Kankang Papa Bari Bari war ci jakarlo ak kiriku ndaysan bousita war ci jakarlo ak Tafa Gueye 2 ndaysan tay Jili mbay Euh, bu Fass euh, war ci jàkkaarloo ak Cheikh Niang tey ordinateur war ci jàkkaarloo ak ak Mbul ay waaye tey bés bi dara du fi yomb tey jaw 2 ak 10 000 problème ndeysaan body ak building a ah, waaye tey jii man bés bi dina ala daw me de dimanche 5 mai di doon bés ba nga xamante ne kenn dootu ko fàtte Alboura Events ndeysaan waaw waaw diggante Eumeu Sène ak Sa Thiès waaw Bou Siteu Tarbaxa ay waay Bou Siteu ay Bou Siteu ay combat nee na niveau bi daa yëg loxo yi mu newoon daa salté ay waay Bou Siteu borom géej waay borom Tiwaan Pël di la ziar di la bégee di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax ndeysaan bokkoon nañ egg kër Bou Siteu na xool nu muy préparé combat waaye temps bee nu ko mayul ndeysaan yaakaar naa bu ñu demee ca stade ba dinañ jàkkaarloog Bou Siteu xool nu préparé combat xool Bou Siteu waaj mu waajaleeg bi Tafa Gueye Tarbaxa ey Tafa Tarbaxa kenn du moom Tafa Gueye Tarbaxa fi jàpp jàpp booy njaago bi daan ko ndeysaan Tafa Gueye Tarbaxa kan nax daan ah, lamba neex ma ne ko lamba neex yaakaar naa li des pour Sa Thiès ah, génn naa Sa génn bëreetul. yaakaar naa li des Sa Thiès génn bëreetul waaw waaw. maangi seen ben borom tanga bi sal jalla bi ñom ñet ci bir yi lañ bok ñom ñet ci xar bu xoobi lañ bok cey lamb cey lamb cey lamba doy war ne sa ey Moussa kejo amul caaxaan de la ilaha illallah ngay joxoñ waji naan ko ñu foto yaa ne yaay mbëroo Música sa ngoog rako Balla Gaye numéro 2 ngi noonu ndeysaan xale baa ngi noonu waaw waaw Sa Thiès la ilaha illallah ndeysaan oh jërëjëf xale baa ngi noonu moo war a jàkkaarloo nga xamante ne mooy Eumeu Sène wàcc na wàcc na dugg ci stade bi ma ngi noonu tey Sa Thiès seer na ma seer waaw waaw te pare tey réeroo gi bëri na de réeroo gi am na Sa Thiès ak baax waaw te duma lees ndeysaan Sa Thiès xale baa ngi nii galaasi ci xar fa nguur fay Sa Thiès mu ngi am ay explication yu ngi defal policier yi waaw commissaire commissaire సాలి పంటలు అయితే శివులో ఉంటాయి సార్ సాలి పదిలో టకా ఉంటాయి సార్ సంపూర్ణ waaw waaw mais eh, am na ay moto nekk seen ginnaaw eh. Sa Thiès bu dee ak xel ak tey. ndeysaan mi ngi noonu.